keja keja Ibrahim Mbow moo jiitu imam Assane topp ci xalifa bi topp ci Serigne Mamadou Sarr bu dool topp ci ñu ngi am nag you can Idang Upadhyaya Aparati Agnasi Aksaratul Padi Amin, amin ya amin. Amin ya Amin. Amin. 在家轮流呢。 ba ñu commencé waxtaan bi donc ñu doon ñu continuer man ko def rek rek taxaw taxaw. Sall ngi nii doon kenn ci xalifa bi alaaji Oustaz Lamine Diop fa tabaarakallaahu mu ngi toog alaaji maa ngi koy uti na léegi man daanaka saa wax du ci bëri bu fi nekkee rek du wax wax ji nag dañ ko bëgg jox rek ñetti heure comme alaaji maa ngi koy uti na li ma war a wax moo koy wax su paree ñu jox alay Serigne Faye fa tabarkalla mu sant ci ay kàddu bu paree ñu jox maire bi yàlla bii di Babacar bu paree ñu jël bi suñu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu maa ngi salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina wa sallim mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu di doomu Serigne Doudou Sarr Serigne Bara Sarr di doomu Serigne Moussa Sarr Cheikh Tidiane di doomu Serigne Moussa Sarr ak mboolem délégation bi jógee Médina ak ndàngal ma ak lu ko wër yépp ñu ànd suñu baay Ibrahima Mbaw ànd ak fa tabarakallahu suñu mag Sawru Diop ànd ay kilifa yi nga xam ne dañoo bàyyi ko ndàngal ma seen nañ fii Euh, Serigne Dione commerçant yaakaar naa ne ñi ñu war a lim sax Serigne Assane Badiane lim na leen présenté na leen ak ñu fekk fi nag waa tund wi yëpp góor ak jigéen mag ndaw euh, ñuy fedd li rek li nga xam ne suñuy maam. suñuy maam ñoo ko fasantawoon ak seeni maam yi ma njéeme day nañ ma léegi na mii fi fa tabaarakallaahu suñuy maam la woon ak seeni maam Mandiakour bi mu ñëwee fii ci Bawol dafa bokk ci première catégorie yi nga xam ne dañoo jaayante woon ak moom suñu maam Aliou Balaam fii ci Ngaraaf daf cee bokk fa tabaarakallaahu góor gi Modou Fall laa ba ca Ngooj ci la bokk Ibrahima Ndiaye ca Bayax ci la bokk Bakar Njaay ca Mexey ci la bokk góor gu Mor Ndong ca Njaago Poole ci la bokk góor di fay ca Gol ci la bokk góor gi Saadi Fall wayjur Jibril Fall ci la bokk ñooñu ci wàllu yii nga xam ne dañoo féete ci wàllu làmbaay ci première catégorie yi demoon ci man ñàkku tawal ko ay loxo ñooñu mooy liñ ci lañ bokk yàlla dogal waa kër Sëriñ Mor Dieng xel nga di njaboot Sëriñ Mor Dieng ñi ngi fi yàlla dogal maam ñàkkur moomu nag bi mu fi nekkee di liggéey jël leeru yëpp yàlla Muhammad tasaare ko ci gox yëpp ñoom ñu taatan seen yi ndab ba fees dell maam ñàkkur moomu bàyyi koo fi bàyyi fi nag ki nga xam ne li ñuy nekk nekk gone moom la ñu gën a xam moom la ñu gën a miin muy Cheikh Moussa Sarr daan ñëw ci dëkk bii daan tudd doom yi di feral ñi fi ne di jullee niiw yi di takk sëy yi maa ngi fàttaliku soxna di soxna Modou Fall bi mu génne àdduna heure bi tembe ñu ko denc fii ci ginnaaw ci darkas yi fii ci gélis bi Serigne Moussa da koo jullee ba ñu wiseen ndox ma ba noppi ci bàmmeel bi mu jël kaalam daal di ko aj daal di joxoon leen ñiw bi tëdd xaw ma kan waaye waxuma moom waaye ku mu fekk ci armée yi sa yaram araama la sa war kenn leen ko la dañ ko fekk ñun maye Jóob moomu nag góor gi ndongo faal ca Kungur moo ko doon denc am ci Ngoone faal am ci Duudu faal am ci Njaga faal am ci Abdu faal ak Papa faal yàlla dogal mu mu faatu Moodu faal dënn ko am ci Bàcc faal mu ne jëmu ji tëdd waxuma moom waaye ku mu fekk ci armeli sa yaram alaama na sawar denc ko denc ko rafet yàlla dogalit ñuy dem ba benn bis heure bii am na góor bu fi gaañu woon xam góor bi mbay coro la xamatuma Baye Mor bi Serigne Mor Dieng nga xam nga toog fii ci taalibe yi ak taalibe yi Baay Faal yaa ngi ko wër takkusaan jëpp Serigne Moussa ñëw daal di ko ne ñëpp la ko ne ko Mor Dieng jógul julli Mor Dieng ne ko Serigne Moussa yaa nga may def looloo xam ne neex na yàlla sama bàyyi musuma koo sant man Baay Faal laa jógul julli mu ne ko Mor Dieng di nga julli tey ñu am ñu lëngoo dugg ci biir jàkk ji julli loolu Serigne Moussa def na ko fii kóllëre boobu yi dox moo tax bi mu génnee àdduna moom Serigne Moussa Serigne Mor Dieng ndax Serigne Moussa dafa gaañu talaata àllarba dañu àllarba ay kare ci safar àllarba li mu ñu ci safar bi ñu koy denc mboolem yëpp la tirim Serigne Mor Dieng jógee ci xam nga yorewaat utiiram romb nit ñi directement fi ñu yor Serigne Moussa bi ñu koy denc ñu yóbbu ci penc bi ñu yëkkat Serigne Moussa ba ca keroog yi ba joor faam moo taxaw ci buntu ar buntu jàkka ji buntu armel daal di wagas ñaari mbubb yi boobu ku am doole la taxaw gërële ne kenn dugg ci biir sikarkat yi sikar bi ñu ko robee ba pare sëñ Mor Dieng dafa dellu kër ga ne man damay mélange sama bopp ñu ne ko la tax mu ne sama xarit dem na damay dem ay tout ñoom Serigne Cheikh Serigne mii ku ñu wax moom Ngoné Moussa Ndiame ñu ñëpp ñu nekk ay donga dem bi ñu demee rang baa nga jóge ca kaw mat na cent mètres dugg ñu rang pour bi sëñ bi ak si ak si karkat yi ñu ne nañu arrêté rang bi Serigne Moussa daal dugg waxtaan ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daal di jógaat ànd ak si karkat yi dellu dellu loolu li muy tekki mooy Serigne Moussa dafa nekkoon jëmm joo xam ne dafa am relation ak nawleem yi nga xam ne dañoo bokkoon réew mi daan yëngatu ci wàllu waaye itam am relation ak ki nekkoon muy Père Senghor ak Léopold Sédar Senghor buñ daan indi ay carte mbiri la dana ñëw kër Alaaji Ndongo Ngom ramasse carte bari ci xaalisam bu ñëwee muy remplir muy remplir tur yi musul am benn problème ak ak ak ak ak ak état bi sëñ Mamadou Seck ñu lay nuyu. Serigne Moussa Diagne fi 72 Serigne Diagne wuutu ko di kay ñëw fàttali am fit amal njàmbaar am ak dogu takkaayu dëgër kan nekk ci wetu Serigne Moussa ak wetu Serigne Ousmane mu wuutu ko nag. fanweeri at ak benn waaw ah, ñu ngi nuyu sëriñ Abdou Khadir Fall bu njàng ñu koy nuyu baax di nuyu sëriñ Mama Thien bi loolu amee sëriñ bi ñu wuutu ko fanweeri at zéro fot dajale taalibe yi ñu bari yaakaaroon nañ ne bu fi Serigne Moussa jógee tarixa bi ak diine ji ak sariya bi fan la nit ñi jëm seen bi taxaw temm ànd ak muxaddam yi muxaddam yu bari buñ ko wutoon ñun tey dina bari lool waaye waxtu yu may ñu ko te kilifa yi dañoo war a dem feneen Serigne Doudou wuutu ko ba l'an deux mille deux bàyyi fi sëriñ Ndiéli Sarr mu ne doom baax lool yaatu lu mu mës a am bokk koog nit ñi te nit ñi am bàyyi koog ñoom sëriñ Ndiéli jóge fi fa tabaarakallaahu sëriñ ñàkkur mii nga xam ne ñun ñëpp ñoo koy jooy te suñu rom lañ faragut ko fukki at ak ñaar di ko doxal. ànd koog ñaakam ànd koog mu xaddamam ñuy dem di dem ba yàlla dogal sëriñ ñàkkuur jóge ne kii ko wutu kenn duñ ko présenté fii ci dëkk bi la jàngee fii la yaroo li ëpp ci ndaam fii la ko defee yàlla dogal mu wutu ko ci taxawaay ci pas-pas fa tabaarakallaahu lii tey lii ko gunge tey ak ñi ñu fekk tey doy na firnde ji ne am nañu yaakaar bu baax am nañu bu baax ñun nag nekk ay taalibe faaw fos yéene fi ñu téye suñu loxo mu dëgër duñu ko benn mukk ndax dañu wax ne li gën téye li gën mooy nga téye bu dëgër waaye nga téye fu dëgër boo téye bu dëgër te fi nga téye dëgërul da ngay daanu fi nga téye bu dëgëree te téyewoo bu dëgër da ngay daanu waaye boo téye fu dëgër fi nga téye dëgër yéen ñaar da ngeen di àndandoo dem ba aljanna moo tax yàlla wax rasulullah ne ko fastamsik billati uhiya ilayk innaka ala siraatin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa li qawmika fosoko taxal moom ca bu ngoonee ca la ñu nekk ñun duñu deltu gannaaw duñu yox yoxi duñu rab rabi duñu tiit duñu afale kenn mënuloo xooxkat fi ñu jàpp mooy nañu ko insha allah duñu fas yéene nekk ay taalibi ba ilaahi ñu xel ba ñu fekk suñu bàyyi ndax suñu bàyyi kat dañoo taxawal ne suñuy maam du leen gën a gore waaye ñu ni tël nag suñuy bàyyi ñu gën a gore kon nag taaliba yaa ngi nii mbokk yaa ngi nii lii day firndeel Sëriñ Moussa Sall daan wax ne man aw may taalibe aw may taalibe ay mbokk la am loola tey lii firndeel li ma mën ne loolu moom lu ñu mën wax la. kon nag taaliba yaa ngi nii mbokk yaa ngi nii mu yaa ngi nii mag ñaa ngi nii famille ngi nii jël nañu suñu buum takk suñu baat teg ko ci seen loxo fas yéene ànd ak yéen bu ngeen nee woo nañu ne kong bu ngeen nee tooy nañu ne xëpp bu ngeen nee weex nañu ne tàll duñu yox yoxi duñu arrière te lu ngeen yoxi ndaa ñu fa dogi insha allah kon nag fa tabaarakallahu ñu ngi leen di tafagal di leen siyaara bu baax di beesal di renouveler li nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi fa tabaarakallaa bàyyi ko ak yéen waaye itam suñuy bàyyi bàyyi ko ak ñun ñoo koy renouveler bu baax a baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Thank you. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi fi daje yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku nekk ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sunu kemtalaayu kàttan la mu àttan nu yéene ko rek di wax ne sëriñ bi yaa sa mbokk yi nga àndal yépp def ngeen li nga war a ndax nit bu jógee ànd ak i doomam ànd ak i rakkam ànd ak i taalibeem ànd ak mbokki démmam ñëw fekk si la indi na li mu am lépp nit nag bu jógee ànd ak li mu am lépp fekk si la wàccoon ak yow kon jërëjëf Sall waa dëkk bi yëpp ñu ngi lay nuyu ànd ak waa Ngaraaf di la nuyu. te di la siyaare te di la jox sa wàccuwaay euh, di fàttali tuuti rek ne taxawaay bi rafet na te matal te tàmbaliwul tey rek bu yàggu rek laay wax fii fi taayeen damaa bëggoon yéen ñi nu gën a jege mbir mi lépp lu ngeen lu fa jëkkatee yëg ci lu war a taxawe loolu na agsi ci lu nu bokk taxawe ndax ñii kenn wàccoo na noonu xam nga dañuy saraxal bay bayaan fii bés boobu ñu koy saraxal Penda Fall gaañ ñu ne suba la yem ñu fanaan seen kër xëyaat ñëw fii ànd ak ñun ci saraxas Penda ci bés boobu soxnaas Mor Sène taay nelaw ca suba seen i sa muy ñetti fan yu tegal ngant amoon mën a yónni beneen ndaw amoon waaye nii ngeen ko ànde woon ci njëlbeen noonu ngeen ko ànde ba ñetti fan yëpp te loolu dafay bëkk démb rek ñu di ko wax waaye la ko jiitu woon lépp rafet kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ne li ngeen fi jaarale lépp ci ak rafetal daa sama kilifa bu baax la Serigne Fallou Cheikh dafa wax ne Serigne Mame Mor Dem mu nee na Serigne ko ku def lu toll ni coon coon baaraam sangalee ci rafetal suñu borom fayee la lu xajul diggante asamaan kon li def ci rafetal ci suñu diggante ak yéen xel dajul nu mu toll bët mënu gis lépp kon loolu ci suñu borom digee digab jaamam ci koy rafetal yàlla ko matale ci yéen dafa leen ci barke Xaadimu Rasuul Ah, di leen nuyu itam ci turu suñu kilifa gële di sëriñ Abdou Khader Fall ah, defe naa li tax sax mu xaw a yeex ba jataay bi tàmbali mooy maçon yi nekk fii yëpp ak mbokki taalibe yi dañuy daje këram daara joojee lañ am ndigalal di ko defal te mënut leen faa bàyyi rek daal di ñëw loolu moo ko xawoon a tënk muy doog ak si nii waaye mu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di wax nag ci loo xam ne Malick moom wax na cosaan lépp waaye ñun fi ñuy wax rek ci seeni i jëmm ñi toog suñu diggante ak yéen ndax Serigne Abdou Assis mi ak Serigne Doudou mi ak Serigne Sarmé garaaf gi lañu yow jànge fi alxuraan ba man ko génn sàkku ji xam-xam ci àll ba ñu demee ba lañuy ñuy sàkku ci xam-xam am ko itam dañoo dellu si te kenn gisu ci sa bopp kenn ku nekk jàpp ne ngaraaf mooy sa pare kon ngaraaf itam jàpp nañ ne ngan gii tey du ngan kenn sunu ngan nun yépp ngaraaf ak Poldé nun ñëpp noo ko bokk te yàlla nañ ko def ay ati at damaa bëgg ngan gii nag ñu def ko annuel maanaam at mu ne ñu def ko waaye damay ñaari su ñëwatee mu nekk ab yàlla nun murit ñu nu def bernde daa bëgg su ñëwatee na nekk ak yàlla nun mu ñu nu def benn ndax danoo bëgg nun sunu sëriñ bu jógee ànd ak ñi mu am ñépp fekk si nu bu ñëwee nu téye ko ba ñëpp barkeelu ci moom waaye téye ko ba barkeelu ci moom bu baax a baax kon noo ngi ñaan loolu tey noo ngi sàkku nga nangul loolu di wax ci ay jikko yoo xam ne ci moom bi yàlla baax a ko ndax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ne ndaw yi ne ndaw yi maa ngi leen di dénk ngeen yor ji koy taw ak néggandiku ga xam nga tam yàlla dafa bind ci moom medd rek lay jëfandikoo su toogat jàkkaarloog lu wér sukuraat ba weer wi del si di wér du ko song mbete mu medd rek rus naa def lu ko yàlla sant bu ko dee xool ba mu medd du ko song mukk day wooyi ay mbokkam bu wooyee mbokk yi ba ñëpp daje mu ne nañ leen ba suñu kilifa jëfandikoo bu kilifa ga jëfandikoo bu jeexee ñu xaar leneen bu jeexut ñu soog a jëfandikoo sëñ Abdou Aziz jikko jooju gis naa ko ci moom ndax fii la yaroo jànge fi alxuraan way juróom ci lañu fàttalikoo nun ci xam xalifa Mérina ndax la ko jiitu fàttalikoo noonu waaye booba ak léegi defe naa magam ji mbokkal wenn wayjur moo mujj a làqu bu yàggul waaye mësuta yàkkamti mësta yóotu daal dana dégg rek yor néggandigoog tan googu ndax néggandigoog tan googu dafa am lu ci xew ndax bañ a def lu ko yàlla sëntu moo tax songut loolu ba mu demee ba midit bañ a lekk wacc ay mbokkam moo tax mu dem wooyi mbokk yi bañ a jiitu kilifaam it moo tax ba mu wooyee mbokk yi ba mu ñëw mu ne nég leen ba sunu kilifa jëfandiku kon loolu gis nañu ko ci barke Sëñ Tuubaa ndax diggante boobu ak léegi mësula sori ki nekk Sëriñ Mbérin te mës ta yóotu dara mës yàkkamti dara waaye yàlla dàq fay ñëpp sunu borom ne ko xaaral sa dal gi ak sa néegandiku gi ma jël Mbérin a gépp ak li yaakaar Mbérin a ko say loxo ngay def ko loolu ak seen tey yàlla yàgg say loxo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaare ñaan sunu borom defal la tawfeex te defal ko képp ku fi teew ñaax ndaw yi ñu roy ci jikko jooju képp ku ko am rek incha allah fa nga bëgg di fa dem sëñ Saar bi moo koy nuyu la ne nuus sama loxo avant ah, may àgg Seex Tijaan bi sëñ Seex ne ma xam nga ne ngaan gi sa ngala ma ne xam naa ne sama ngala loolu mu ma wax nag moo tax may ñaan déwén nu defaat ko waaye na doon ak yenn koo bëgg a gane ji jàppal ko beneen bés waaye bés bu nu koy am daal man moom bés bi yëpp rek waaw la ca war lépp nu def ko lan ci yéene lépp nu def ko kon ñoo ngi nuyu mbokk yi fi daje ah te di leen siyaare di ñaan sunu borom defal leen tawfeex Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax mu le maire di la sant bu baax di la gërëm ndax ngaraaf lépp loo xam ne ñor na leen bu ñu geesoo gis leen kon yàlla leen yàlla defal tawfeex bu baax sëñ maam ak mbokki taalibe yi fi daje yeeg yi fay yëpp am naa fi sama waajur maa ngi koy nuyu moom itam daroon sama waay waay am na ko ko nangu ci <laughs> muy sëñ ma njéeme ba rek président soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ndàngal ma fekk euh, sama waay la woon loolu waaye am na waay bu ko nangu ci maam sëñ si fay nangu waaye ku fi teew rek yàlla sa aaju fay kon sëriñ ñu lay ñaan nga ñaanal jaam yi saa borom may leen fan gudd

donc boo benn bis nag sa sëriñ ànd ak ñi mu am ñëw nga dalal ko toog nga jàkkaarloo te loolu may nga leen ko te kenn ku ne xam ne jamono xam waaye ci jamono yi ak li temps di jafe ak fi mag yi toll ak ñi lay soxla ni mu toll waaye teewul lépp bàyyi nga ko ñëw ci waaye jigéen ñi ñu ngi leen di ndax fépp fu nu mën a daje même Touba bi ñu def penc mënu daje. ñëpp maase nañ ci ne jigéen ñi ñoo am booy laaj ki bëgg a oomal demal ci ñoom yàlla xam na ñoo dàq joxe fuuf góor ñi ndax bari ci góor ñi buñ jegee mag tuuti rek dañ laaj ba dañ koy bàyyi gone waaye jigéen ñi moom kala ci gën a mage moo la dàq joxe ba ci ki ci gën a doon ndaw yàlla yàlla guddal seenu fa lu ngeen am ci dëkk bi yàlla barkeel yàlla na njaboot gépp barkeel saa borom doon leen tawfeex wërsëg bi na yokk lool barki Seexul Xaadim kon sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp tey gërëm euh, sëñ baaram ñii nga xam ne moom noo euh, bokkal nekk ca tool waaye bokkaat ni fii te mu am ak xoyof am ak yéen lool yaroo waaye tur bi ni mu ko xam ablu ndax noo bokkal ne ak njaboot bi yëpp mu seq ñoom yiw boo xam ne kenn rusu ko wax fenn ku ma dajeel seen ak jotaay mën naa yàgg kenn rusu ko jërë ngi nuyu ñëpp di leen siyaare suñ Aliou Ngom ñu ngi lay siyaar baax a baax suñ Aliou Ndiaye suñ Abdou Ndour jaaj yi bàyyi gudd ñu ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare suñu bëggee di mat day def day xam kii waaye sant na ñëpp gërëm na leen voilà jërëjëf ah jërëjëf Serigne Faye kàddu yi rafet na waaye dañoo bëgg bala ñoo jox micro bi kilifa yi ñu jox ko monsieur le maire monsieur le ñu ngi lay bu baax dañoo accès fitna ñu accès rek ñu ne ñu jàpp micro bi moo tax bi ñuy nuyoo ñu xam ne waa ñu war a jëkk a nuyu ndax itam ñun ñëpp yaa ñu jaboote Eh, ñun ñëpp ci sa weer la naan eh, kon nag ñu jox kàddu gi rek bu ko defee nga siyaaranteeg eh, sëriñ bi siyaaranteeg bokki réew mi yëpp waaw tabax bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi fi fekk yëpp kenn ku ne ci turam ak santam ak jiital ci nuyu bi suñu sëriñ xalifa sëñ Abdou Aziz Sarr ku nuyoo ñu nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom la àndal comme temps bi ni ñu ko waxee rek dafa xaw xat mais bari nañu wóllëre lool mari na kon euh, bu ñu ñëwee ak sëriñ bi dañ ci kontaan bu baax a baax di leen dal fii ci Ngaraaf bu ma nee fii ci Ngaraaf di leen dal fii ci commune Ngogom nuyu euh, kilifa nga xam ne moom laa fi fekk sëñ Abdou Khadir Fall euh, sëriñ Faye mi wax léegi nii imam bu Ngogom ak bu Ndorong te ñu ràññee leen ci jotaay bi sëñ Mama Thien ñoom ñëpp nekk suñu wolore suñu xarit yàlla def ñu fekk suñu ci bés bi ndax bés bii suñu bés la ñun waa Ngogom kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal di rafetlu ñëw bi nga xam ne ñoo ngeen tey ci ngaaf ndax bu ma xëy bu ma juumul tournée bi ci ngaraaf ngeen jékkee mbaa boobu ngeen ngi commencé tourner voilà ci ngaraaf loolu nekk nag sag bu rëy ci population ngaraaf nekk sag bu ci commune Mbobam te xam nañu ne eh, tournée bi luñ fi ñaam waxu moo dina laaw ci commune Mbobam mais département Bambey Sénégal yëpp incha allah ah dinañ jot ci ñaan yi nga xam ne moom ngay def fii kon fii ñu nekk dañu représenté état mun nañu ne président de la république ak ministre république yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Mor Ngom ak seen naataango yëpp représenté nañu ci bés bi ni ko sëñ Faye waxe rek bés yu mel ni bu ñu sañoon sax ñu ñu biral ko ndax dafa mel ni dañ koy man bi ma koy yëg maa ngi Bambey foofu laa dawee rek euh, jubal si fii waaw dafa xat comprendre nañ ko mais comme ni ma ko waxee rek bu ñu sañoon beneen yoon daal ah mu gën a yaatu bu ñu itam ñu def suñu participation parce que lii kat moom wax dëgg fa yàlla dañ cee kontaan loolu tax li ñu war a wax yëpp duñ ko mën a wax mais bu ñu kontaanee dañuy gërëm bu baax suñu mbokk waa Ngaraf sëñ fay wax na ko nee na lépp lu xew rek lu ñu am ci bés bu am solo rek dañuy gis euh, euh, loolu daf ñu war parce que ñun itam lépp lu ñu jàpp rek waa Ngaraf ñoo ciy jiitu ñoo ciy nuyu te commune bi yëpp xam nañu loolu. kon bu ñu ñëwee ñu am bés bu mel nii lu ñu jàppoon dañ bàyyi ñëw fekk si bés bi jàpp ci bés bi gërëm bu baax aussi ngeen ko waxee jigéen ñi ndax lii aussi tam euh, mën naa ne lépp lu ñuy jàpp ñun commune Ngogom rek jigéen ñi ñoo ci raw sax noonu laay wax donc kon bu leen gërëmee léegi ci turu commune Ngogom turu conseil municipal Ngogom dama leen di beral cant boobu aussi di wane daal sëñ bi. suñu kàddu cant la rek kontaan lool bu ñu sañoon itam da def sax tuuru commune bi yëpp ndax wóor na ma ne ak ñu bëri ñoo la ko soxla ci lu tooy te rajo yi rajo bii xam naa fu mu ak moom ñu bëri dinañ la sollicité donc kon loolu aussi mbégte la ci ñun vraiment ñu ñaan yàlla rek nga yàgg lool suñu kanam yàgg ñoo teete yàgg ñoo ñaanal yàgg ñaanal réew eh, foofu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi muy Bilal fële nekk euh, euh, chargé de mission à la présidence ak suñu doyen Mandiémé te man ak ñoom ñu bokk liggéey bi ndax liggéeyu euh, commune liggéeyu askan bi la rek ku ci ne da ngay laajtee ñu lay ñaanal mais di la jàppale ndax liggéey bi mm, yéen mi metti na li nga xam ne chaque jour dañ lay soxla da ngay soxla nag ñu lay jàppale te ngelaw yi nag desuñ ci sëñ bi lool mo bina la ko wax bu baax mo baax mënuma def une semaine te amul fu ma woo ci ngelaw di ñaan hein. chaque jour non la dëkkee ak ñoom donc boo fi ñëwé dama ko lay firnel lool war nañ ñu baax lañu nit ñu baax nit ñu jàppale commune bi té lépp lu ñu sumb rek ni ma ko waxé légui rek ñoo ci njëkk ñoo ci mujj kon boo fi ñëwé rek té lay doon ci ñun eh, di sakkuwaat ñaan rek ci tour commune yépp ci département bi ak ah, ngeen ñaanal ñu. ndax yéen lii nga xam ne yàlla teg nañu ko suñu population teg ñu ko ah mu oyof ba mu mën koo exécuter ba ndox doy courant doy projet yi war a dem ci jigéen ñi doy lépp lu war a dem ci mag ñi aussi mën a dem ci ñoom ba daal xiiwal baawaan ci département Bambey yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf euh, monsieur le maire ñu ngi bu baax di la gërëm dana yàlla yàggal sa taxawaay e, dafa am ku dee léegi wax lu yéeme defe naa mbaar mi ñu koy fondement si Abdou Assis mi defe naa moo ko moo tegeen xeer yi ak Alaaji Sëriñ Ceeb yàlla dogal na it nag mbaar mi siyaar bii nga xam moom la sëñ bi def dafa tombe ak àggale mbaar mi mbaar mi yàlla dogal na àgg kon bu tombe ak sëñ bi ñëw fii loolu dafay mel ni ñaan bu nëmb la tabaarakallah kon léegi ah, monsieur ak si la mbaar mi pare tey. tey la mbaar mi pare macha allah loolu lépp ñaar gën a bëri. suñu mu seen Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ma jéeme ñu ngi lay nuyu yow mën nañoo wax ne ci gan ñi nga bokk waaye ci délégation bi nga bokk ma jéeme ku mat a bàyyi xel la ku mat a ñaanal sëñ bi nit la koo xam ne. fa tabaarakallaahu soxlaay doomu aadama yi rek moo ko ñaax te loolu ku ko xam rek xam nga yàlla xam na ne eh, ñi di ñëwootu sëriñ bi gën a ñëwee sëriñ bi man njéemi bi moo ëpp gën a xëy sëriñ bi kon yàlla yàlla guddal sa fan tabaarakallaahu mu mel ni kon dañu bëggoon rek jox Mamadou Ousmane waaye ñu doon ñaan man bi muy ñëw damaa xalaatoon ne bu ma jëlee kàddu gi dama koy jox Cheikh Serigne mii Serigne toogal fi waa Ngara wax seen kàddu ñun ñëpp ndax itam ñun duñu par parloo waaye nag péete moom day am Serigne mii waa Ngara dañ ko tippoo dañ ko tippoo kon bu àndee délégation bi jógee Medina ci ñi ñuy ziara sant Sarr waaye wëlbatiku it nag. mu am fii ci ngaraf cër bu rëy man li doonoon sama xalaat dama noonu bu ma ñëwee rek bu ñu mën naa jox kàddu bi sëriñ laa koy jox mu wax wuutu ñu ci sëñ bi kon nag kon yàlla dogal na mu demee nii dañoo bëgg rek ñu jox ko kàddu gi mu ubbil Mamadou Ousmane bu ko defee ñu door euh, jox sëriñ bi mu ñaan sëriñ bismillah رب العالمين والصلاة والسلام على أقل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين مبكي Ngaraaf مبكي بوليك مبكي commune Ngogom ñi ngi leen di nuyu ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaakaar naa ne foofu la ñu doon yem ba waa ji ñëwee ci yonente bi ne ko asalaamaaleykum yonente bi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah keneen ñëw ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu keneen ñëw ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne ko tegal nga ñëpp te tegaloo ma mu ne ko da ngaa jeexal lépp tàkk kon foofu la nuyoo yam ñu ngi nuyu waa Ngaraam ñëpp di ñaan li nuyoo bi la moom muy jàmm ak yërmande ak barke yal na ko waa yàlla wàcce ci penku Ngaraam mi wàcce ko ci tund boole wàcce ko ci commune boobu yëpp fa mel ne tawarkalla Malick Diouf ndax man du ma sëriñu waa Ngaraaf doomu waa Ngaraaf laa ndax ku ma dajee fii ci Ngaraaf rek am noo bokk yow ci ndey wala bokk yow ci baay te seeni baay ak seeni yaay ñoo nekk tuur tànk sama loxo ci digal sëriñ Tuur indi ma jox ko àll ca si dinañ ba yan booba la Ngaraaf jël loxo ñoom ñëpp teg ci fii dama wax ne yàlla du jóg. xam nga sëriñ bi ku baax la ku mat a kóllëre la ku bëgg jàmm la ku fonk maam la bi mu jóge yoonu dane ginnaaw maam ñàkk saa bi mu liggéeyee ba ñëw jamal wàcc dañuy jëkk njama ñépp rafetlu ko njama fa la bal ba maam ñàkk fa la ñaani maam maam maam ga seen moom mooy seen fa la ñaani ñëpp la ñaanal waaye yàlla daa bañ yàlla da ne sëriñ Abdou Aziz mi nekk xalifa bi fi mu tibbee alxuraan foofu la jëkkee te kenn mënu ko moo tax kenn mënul compter ñu la yàlla dogal ñu ngi bu baax a baax di dellu dara suñu xel xam ne nan fa nekkee woon ay taalibe bi ñu nekkee sëriñ itam dina fa nekk doom rek nekk jëlaat Sering waktu asis gerak gini. Saya domi bayi gini. Saya domi day gini. Saya talibe gini. Saya woldere gini. Saya dekat gini. ñëpp nañu waaw ndax yaa ko ci wax naa ne teraanga dañ koy jënd wala ak si yow te teraanga ji moom da ko jënd sëriñ ñàkk ko moo nekkoon xalifa bi nekk Dakar waaye loo xew am das ngay gis Budak am na si ngay gis bu dee ngénte am na si ngay gis bu dee denc am na si ngay gis bu dee takk bu dee teg xeeru jàkk bu dee teg xeeru mbaar bu dee leneen am na si ngay gis kon jënd na ko dem te doo ko ñëw kon bi yàlla jëlee meetar bi teg ko ci boppam nag ñun ñëpp dañu alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax sëñ Abdou waa Ngaraaf ñu ngi lay ñaanal yàlla sa toogaay bi yàlla yàgg sees bii nga toog doon na mag ña toog fi nekk toog mag ña toogee woon yàlla nga yàgg toog sees bi ñun nag lu nu am ku ñu alhamdulilah ne jërëjëf ay xaaji tafsir yi wax ba moom la sëriñ Moussa tànn sëriñ Ousmane tànn ko sëriñ Diouf tànn ko ñu jël seen meññeetam ku doxoon jox ko mu jël li gën ci àdduna ko def ko seen dërëm mooy alxuraan ndax yéen ko wax xayrukum man ta'allama alxuraan wa 'allamahu li ko kon bu ñu ñëwee ngaraam ñu jox ñu fi kàddu fa tabaarakallaahu sant nañ sant la gërëm nañ ndax mbir mi mu mujjee sa loxo kat dara dara soxlu na sa bàyyi daan def di jógee mbiri mun a ah, gaal di ñëw mbiri na di nemmi ku njaboot bi di jënd ak ñoom ñaar koy def du ñu am ñaari semaine mukk wala ñetti du ñu am dara te saa yoo ñëwee dafa jëriñ te tund garaaf yëpp ngi ñëwaale ñu ngi lay gërëm ñu lay sant te nga xam ne góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndam ñëpp takk nañ seenu la ko yi nga ñaan yàlla yaa ngi lay def te ñu ngi ko tànn feneen ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh eh, mu mel ni. tabarakallahu eh, kon dañoo bëgg a jox kàddu gi Mamadou Ousmane Sarr waaye Alaaji Assane Badiane dana mi ngi sàkku ci sëriñ bi ñu bàcc faal ñu defal ko ñaan ndax nekk fi ma nga Dakar yàlla dafa dogal yaram bi dafa xaw a eh, sutaate yàlla ñu dolli ko ñaan bu fi nekkoon fa tabaarakallaahu moom kenn ñëpp ko xam ku dëkk Medina rek xam nga pas-pasam ak taxawaayam waaye itam ñu di leen seeraloo ne suñu mag yu baax yii nañ leen dolli ñaan muy Assane Badiane ak Mourou Badiane ak Ilimane ak si Aliou Taal mii ñoom ñoo taxaw jàkka ji ak ñi ànd ak ñoom kii di suñu mag bi Assane mooy suñu kilifa duñu werante moom ci lenn. te def noo wutu foo xam ne kenn mënu kenn kenn mënuñu faa wut mooy dëj yi fii xew ci réew mi xew yeeg wàcc tamit yëpp moom ñu mënu fii wut ñun suñu yoon ci ngénte suñu yoon ci ceeb suñu yoon ci dëj suñu yoon ci jaare lu fi xew moom mooy sol yéreem dem lu fa war mu def ko te duñ ko jox dërëm kon nag loolu itam ñu ngi sàpp sëriñ bi ñu boole ko ci ñaan gi ak ñii nga xam ne ñoom lay wettali ko ci jàkk ji fa tabarakallahu muy Modou Badiane Aliou Taye Ilimane Ngone ak mboolem ñi ngi soxal jàkk ji kon ci jox euh, sëñ bi kàddu bi bismillah bi nag xam naa sëñ Malick daanaka liñ ci war lépp wax na ko sëriñ Faye tabaarakallaahu seen kàddu yi rafet na et eh, comme nag ab xalifa Madina Sarr moo jóg di nemmiku ay mbokkam ay taalibeem ay am di jàmmam mën nañu nuyu rek ci. wet bu nekk kenn jënn jëm buñ ko nee rek neeru ñu ñëpp xalifa di sëtu maam ñàkkur saar moo ñëw tey di ndemmiku sëti maam ñàkkur saar taalibey ñàkkur saar sëti sëriñ Touba taalibey sëriñ Touba sëti Ash Malik taalibey kon ñu ngi jiital suñu nuyoo ci xalif général de Mouride Cheikh Sidi Mountakha Mbacké ndax maam ñàkkul saar wëlëreem ak Sëriñ Tuubaa ca njaareem bañ koy sanc séqu tiir ga ñu séqan ak lenn ci ay tuaf tuaf bu ñu ko waxee mooy ay patrimoine ñu ko garde ba léegi loolu yàgg na sëtu Sëriñ Tuubaa moo toog ci Tuubaa tey sëtu ñàkkul saar moo toog fii ci Mérina kon ba ñu jiital kenn dañ ko néeg du nuyoo Cheikh Mountakha nuyu nañu mboolem murit yi ñu ngi nuyu Cheikh Seydi Aj Malick risaala abi Seydi al Xayrawaani bi Cheikh Seydi Aj bind ci loxo boppam ak daa ak xalima ak bant mu ngi mu ngi ci ko ñoo kon ñu xalif général de Tijaan Cheikh Abu Bakar si ibnu Cheikh Mansur ak njabotu Tiwaawan yeb ñooñu nak amate ku nekk ci ñooñu amna na ku la fi teewal tey su ma nuyu waa Kër Touba nuyu na mbolem waa Cheikh Ibrahim Fall suma ma nuyoo Cheikh Sidaaj Malik nuyu na mbolem kuy muqaddamu Tijaan mo xam njabotu Cheikh Abu Bakar la wala keneen te ñooñu amna ñu fi teewal fi tay ndax kat sët di sëtu ñàkku moo daje ak sët ñoo ñu fi nekkoon jamoneen toon jamono ju yàgg jàmm dox seen diggante ak wala réew yàgg-yàgg tabaarakallaahu kon ñu ngi bu ñu néew ñoo ñëpp rek néew nañu mboolem ñu fi teew tabaarakallaahu comme Malick lim na leen eh, Alaaji Sëriñ Fay lim leen jar ñu jaaj turee tabaarakallaahu waaye dafa am ñu tedd ñoo xam ne ñëw nañu fi ñu ngi nuyu imaam yi fi teew yëpp di nuyu jàngalekat yi fi teew di nuyu itam tabaarakallaahu ñi fi teewal état bi te Babacar Ndiaye wax léegi seen turu mu Mor Ngom suñu maire bu ndàngal ma yebal na fi Bilal Fall mi nga xam ne dañ koo sarse ab liggéey ca présidence ca palais ba te mu nekk loxoom fii ci ndàngal ma yebal na ko jox ay oto ak ay ndimbal yu baree baree bari ne feet karawaan bi jeex nañu ànd ak yéen ci loolu bu fi mën na teew moom nga ànd ñun teew xam naa ko wéré wéré tabarakallah Moustapha Fall teew na fi jiite moment bu rëy ci ndàngal ma ak li ko wër ak fu du ndàngal ma sax tabarakallah sant nañ leen baax a baax a baax Babacar bi nga xam ne moo ñu dalal moom tabarakallahu moom suñu diggante yàgg na lool nit ku am colère la nit ku baax la nit ku yiw la tabarakallahu eh, dikk bii tey ni ko Cheikh Sëñ Sarr waxee noonu rek la surtout maam ñàkkur moo ne ci xilaafa gi tey te mu ngi jàngee ngaraaf ak sa ñàkkur bi mu jógee waalo jago la wàcc waaye nag sëtam tey bi mu jógee mairie di laxas ñu ngaraaf la jëkkee te waa rekk la moo tax kon jëkkee ngaraaf bi dégg sët ko nekkul loo xam ne dafa dafa tombe rek waaye dafa war a nekk te waa rekk la waa njama dañu am ay xew-xew buy xew ci kanam ba tax ñu bari génn te dal seeguñu moo tax ñu may leen bis boobu ba beneen yoon tabarakallah kon ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp ñu ngi balu àq ñépp sëriñ bi nag dafa am lu ngeen def loo xam ne beneen yoon yoone moom na ngeen ko moytu na wut benn sees jox ko moom doomu ngeen teg ma feneen waaye bokk gi bokk sees bi moom maa ngi ko jéggalu moom bokk sees bi moom sa sa borom soppeeku ko noonu jamono mooy dox yi di am rek waaye dëgg la ñoom fekkoon ñu ko noonu tabaarakallaahu bu doon suñu mbokk miir gi xaatuñu ko tabaarakallaahu seen yar ak seen fonk tabaarakallaahu ñoom tabaarakallaahu ñu ñu ko ñoom kon maa ngi koy jégalu sëriñ bi di ko jégalu yéen ba ñoo ngir benn seet rek jox ko ngeen jox ñu beneen seet bu takkul bu ci takkul sax baax na bu ci takkul rek baax na tabaarakallaahu tabaarakallaahu ñu ngi leen sant baax a baax a baax ñu ngi gërëm jigéen ñi yi tabaarakallaahu gis nañu ne jigéen ñi nga xam ne ñooy siyaare Medina bu doon ñoom dong du ngeen toll du ñu toll nii waaye xam ne ñëpp a ci ànd dem naa ba Ngaraaf su ma fi ñëwee léeg-léeg mu ñëw ba ñibbi taal Medina du ma gis ndax def ba tey loolu li ko waral dama jàpp ne benn lañu rek benn lañu ci ca taarix ba fi ñu nekk nii rek benn lañu maa ngi sant ñëpp tabaaraka sëriñ bi nag lii da koo def muy wat ca wateeg taalibe su fekkee boo soxlaa mu ñëw bu àjjumaa mu ñëw julli si booy ngénte mu ñëw boo wootee siyaara mu ñëw soo wootee gàmm mu ñëw yow itam ne war nga nekk jëm joo xam ne boo toogee ba mu yàgg war nga jóg sa tànk dem nemmiku ko beesal ko waxtaan ak moom ñaanal ko yàlla ndax tànk yi moom tànki yi barke rek lay doon am na ñoo xam ne fu ñu fu ñu joggi seen tànk wax waxuma la waxtu takkusaan eh, tabaarakallah tarixa bi wax na ci lu bare bare bare bare ci loolu kon loolu waa Ngaraaf ñoom ñoo ko muuroo tey yal nañ ko muuroo lépp euh, loo xam ne yéene nañ ko ci ci yiw ñaan nañ ko yàlla defal ñu ngi ñaanal sëriñ bi nag imaam Ndour gis nañu la tabaarakallaahu sëriñ maam ma Ceen mën naa wax ne délégation bi la ànd ndax lu méri lu nekk loxoom ma loxoom bu gën a méri na dina am fa yaraax tabaarakallaahu kon ñu ngi ko sant baax di ko gërëm sëriñ Jaaji Sekk ca Lulu Euh, papaam tabaaraka la lii la fi nekkee woon maa ngi fàttaliku keroog bu ñuy teeru sëñ Mbàkke Soxna Lo ci mexey Lambaay keroog sëñ sëñ sëñ Mut Sekk dafa bi sëñ bi tëdd comme nii ñëpp ñëpp tëddee te ku rëy la mu xam ne mu mag la fees dell la mais er, orma ak wëllëre ak fonk ñi mu dëkkal dafa tëdd suuf keroog bu sëñ bi ñëwee et bi ñuy tabax jàkka njaar bi ju jëkk ji muy jàkkaay ban sëñ Abdul Xaadir ñu ngi koy nuyu baax a baax waa di ko siyaare kaw sëñ Cheikh imaam bi yàlla dafa xëy jiital ñu jënd ñaari per ak ñaari peer jox mi ma assis mii ñu dem ci wan nga di gàbb di móol di teg jàkkaay nga jàkkaay ngaar bi njëkk muy jàkkaay ban fan yenn kaw di móol ba ngoon jot ba sëñ Abdul Xaadir eh, lii sa wàll la sa mbir la bokk waa kër sëñ Mor Dieng ñoom moom waxaale ñu ko li ci yi wax doy na sëkk tabarak ñooñu suñu doomi ndey lañu suñu doom bàyyi lañu kon daal dafa mel ni eh, jikki lim daal <laughs> xaw koo ngi sant daal bi kontaan na ndax lu mel nii ngeen def tey bi ngeen def tey ak ni ngeen ko fonkee foo bi ngeen toog ne teg di ko déglu di déglu njabootam tabarakallahu loolu kenn mënu ko fekk kon nag ma njéemee xam ngeen moom jikkoom maa ngi wax na ko léegi lu waaye yëkkat lu nekk mu jàpp ci loolu moom lu waaye yëkkati lu nekk jàppale ca moo xam ndaw la moo xam mag la ñi mu mag ak ñi ko mag ak ñi maaseel yëpp ku nekk gis na loxoom fu nekk buñ jógee mbir na lañu fekk mbir lañu fekk dugg jotee ma wala mu ñëw fii waaye dafa ñëw mbir na ànd ak ñoom ñu ñu ñëw ngi koy sant baax ngalaaf na wax naa ne eh lu ngeen fii lu manqué woon seen dara manqué na fi seen góor su ñuy wax maam góor bajaan mottali na ko maam góor def na liggéey boo xam ne ngaraaf ci Medina lu mankoon ci ngaraaf rek mot ngóor sot mot na ko tabarakallah di liggéey suba ngoon te du laaj dara di liggéey suba ngoon liggéey bi gën te du laaj dara tabarakallah ñu ngi ko ñaar yàlla baax a baax a baax yàlla gën koo def mag yàlla gën koo sàmm wax naa ko ci muñ ne naa ko boo demee ne waa ngaraaf lu mu manqué woon rek ci ñoom rek yow mot na ko tabarakallah jërë ngeen jëf suñu mbokk Modou Dione moom itam fu ñu jógee rek ànd naa ñun wala mu jiitu ñu fa ñu ngi koy sant baax a baax a baax yéen ñëpp dégg ngeen dégg seen woote bi xaj sanal xaadiriya dina fi ñëw si xaayaar kon ñëpp bis ba incha kenn manqué nañu fa teew moom kat du du tax taxawlu kenn guddeeg bëccëg day dox di joxe àllam tabaarakallaa jox nañu ko sant bu baax baax di ko gërëm fu ñu taxaw rek taxawal ko kon eh, yoon wi daal mooy siyaara nemmeeku rek jéem a ñaan yàlla yàlla sàmm ñi fi nekk di ndaw. yàlla sàmm jigéen ñi yàlla sàmm mag ñi gën leen a guddal seeni fan borom dëkk bi tabaarakallaahu ak ñi topp ñoom ñëpp njox bajaan suñu mag nga xam ne moo ñoroon ci daara ji ah suñu sëriñ la moom moom njox njox suñu sëriñ la suñu mag la dañ ko daan xëy di ko war dañ daan war ci kaw ci daara ji tabaarakallaahu moom lañ gënoon yëpp te moo ñu daanaka moo ñu dalal baax tabaarakallaahu ñu ko sant baax te moo tax ma ne kenn mu tax a jëlee ngaraab taal kon nag nañ ci rafetal ñun ñëpp mënuñu koo séddoo kenn mënu koo jël bàyyi morom Sénégal moom tarixa yi fi ne murit tijaan ak bàyyi laa yéen yeneen kenn mënu cee far morom kon nañ ko rafetal dëkkin bi rek moo gën yéen ñi nag kenn jiitu leen ci yéen lu ngeen man def ngeen ko jàkk ji taalibe tijaan yi koy jiite leneen lu ngeen xew ñu moom ñoom ngeen di wow loolu tabaaraka loolu réer na ci ñun loolu kon ñu ngi sant di gërëm ñëpp xam naa jox sëriñ bi mu def ay kaddu ñu ñaanal bàcc faal ñaanal mboolem ñi nga xam ne dañu dañu feebar wala ñu am ay jafe-jafe moo am ci réew mi la wala bitim réew ndax xale yi nekk bitim réew day taalibe dëkk bi ci Ngaraaf ñoom ñëpp def nañu participation bu rëy ci liggéey mairie yi seen loxo bu teg benn yoon bu dee gàmmu ñu yónnee bu dee liggéey ñu yónnee di woote téléphone di jox seen alal kon ñu nek bitim rew itam ñu boo leen ci ñaan gi yalla sam leen ba lañu ñu ñu am ko mo xam nak dañuy siyaare mbir wala ñu dañuy siyaare fenen te dëkk ci dëkk bi tabarakallah ngaraaf moom dëkk bu la sa alquran ba nga man ko mënatuloo ko fay liñ man muy di leen fàttali ko rek ñu toll di leen ñaan yalla di ñaan di leen ñaanal sëriñ bi yàlla guddal fanam eh, xam leen daal ni ñu ande ak mom di ay rakam di ay mbokam kenn ci respectut kenn ci gàddul jëm fenn fasuñu ko yéene itam bu ne waaw ñu ne waaw bu ne déet ñu ne déet loolu fu ngeen nek seen xel mi ci loolu inshallah allah jërë ngeen jëfati Malik jërëjëf Malik wa tabarakallahu wax yëpp di suñu taalibe xomaagal nañu waaye tey xacc nañu ba ñuy weex taal yaakaar naa ne desetul benn tilim tilim ginaar gu jóge mbir sax bu ñëwee fii bu ñu ko xoolee rek besam pour fa tabaarakallaahu sëriñ bi tey taalibe ñëpp góor jigéen mag ndaw bokki poli bi yëpp ñoo lay siyaare waat di yees lu waat li Alaaji Maalik waxoon sax rek fa ñu nekkee démb ba ñu nga duñu changé duñu soppeeku dañuy weextaan rek dañ tam bu dul kaw asalaamaaleykum lii la ñoo ko siyaare te ko waaw dem na Màkka dem na Medina asalaamaaleykum kon euh, mbooloo mi kon ñoo defaraat toogaay yi te ñu déglu nag kii nga xam ne mooy xalifa bi moo eh, li mu nuy sànni mu sànni ñu ko li Mamadou Ousmane Sarr wax doy na sëg jot na rafet na xanaa rek ñaanu ak it barkeelu ci sa kaddu ñun ñëpp ñu ànd déglu ko nag bismillah الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يهديون هو الذي خلقكم من تين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون السلام عليكم سرين مرينا من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu sante yàlla julli jonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nuyu nuyu dinu sant dinu gërëm dafa mel ni ñi fi jëkk a wax ñi wax li ñu toujours dinaa di wax ne toujours dinaa di wax ne maa wax wala man lañu jiital wala man lañu jiital la taxee fekk wax ñu wax ba mu wax fekk wax ñu wax ba mu xel neexam xel. wala naqarim xel. wala naqarim xel. bëgg laa dugal. bëgg laa dugal. ci teg ca dara. ci teg ca dara. mën ngaa yàq li ñu waxal lépp. mën ngaa yàq wax ju rafet dañu waxal lépp. te ñu wax ñëpp. te ñi fi wax ñëpp. lu ci yàqu. lu ci yàqu. mën nañ leen koo jéggal. mën nañu leen koo jéggal. waaye lu ma yàq man. waaye man nii nag lu ma yàq. maak yéen ñi koy déglu. maak yéen ñi koy déglu. ak ñoom ñi ko wax. ak ñoom ñi ko wax. ñun ñëpp koy per ñun ñepp ay rus am pertement. lo tax wax ji jarul la guddal. lo tax jarut may guddal samay kaddu yéen ko wax. yéen ko wax. fii nu toog ngaraaf la. fii nu toog ngaraaf poléeg la. suñu lepp fi la. suñu lepp fi la. way ni ñu mel. way ni wa ngaraf mel. tik talibé tik talibé ak ci nangul sëriñ. ak ci nangul seen sëriñ. ba nu fi nekké itam. ba nu fi nekkee ci dëkk bi it. lu doon doon doon gone taalibe. lan doon doon doon gone taalibe. war ma ji war ci nun war ma ji war ci ci nun ñu ngi ko doon jox. waa Ngaraaf ñu ngi ko doon jox. man xam nga xam nga yàlla man taxoon ma bëgg football lool. man mii sëriñ bi tey bëggoon naa football. waaye fii lañu ma daan dogalee. waaye fii lañu ma daan dogalee. bàyyi àll bajaan ñoom. bàyyi àll bajaan ñoom. waaw bu dugal ci jàkka ji. woo mat ma ba dugal ba ci biir jàkka ji. na jiiteel nu julli. na doxal nu هو سبورتيف دي داس tax li ñu wane nii. moo tax lii li fi wane nii. naka jekk naka jekk. nii la woon nii rek la ma xamee. xanaa wax ci li mujj rek. xanaa wax ci li mujj. bi sëriñ bi làqoo. bi sëriñ bi ko dafa dafa lu ne ku ne def ko. lu nekk ku nekk def ko. rakk yi ma yàlla booleel. sama rakk yu tedd yii ma yàlla booleel. teel a noppal nit ñi. teel a noppal nit ñi. ci laaj. ci laaj. luy xew. luy xew ëllëg. ba ñu robee ba ñëw. ba ñu robee ba ñëw. dañuy jox seen déclaration. la ñu def seen déclaration. teg ko ci loxol Serigne Sall ibnu mii. teg ko ci loxol Serigne Sall mu mu déclaré ko. mu déclaré ko. ba tey jii may wax ak yéen. ba bisab tey bii may wax ak yéen. ci loolu lañu ñu ne. ci loolu nekk. fii nu toog nii. fii nu toog nii. Mouhamed Sarr bii. Mouhamed Ousmane Sarr mii. bi mu fii laata toog. bi mu fii laata toog. assisté na ba tey. gàttal na ba tey. ma ne ko toogal rek loolu la yàlla dogal. ma ne ko toogal xat-xat bee rek. mu doora nu ngoo toog. mu doora nu ngoo toog làng ak man. loolu moom. loolu moom. su fekkone ne. su fekkone ne. dara luy bijji lor amna ci. dara luy bijji lor amna ci. ma saña wat ne. kon ma saña wat ne. dara du ko ci wopp. dara du ko ci lor mom Abdou moom Serigne mohammed Ousmane. incha allah jeeg soob na yalla ngaraf nak ngaraf gi nak xam ngeen ne Fatou serigne ñàkku. xam ngeen ne Fatou serigne ñàkku. ak gamogi ak gamogi gi. na lol na dañoo taxaw temm. waaye Ngaraaf taxaw temm. bi sëriñ bi làqoo. bi sëriñ bi làqoo yi. mu tax ñu taxawaat temm. ñu taxawaat temm. bi gàmmu gi ñëwee. bi gàmmu gi ñëwee. xam ngeen ne gàmmu. te gàmmu. xam ngeen ne. xam nanu ne. li ci ay fere. li ci di fere. ku mu fekkul woon nga man sa bopp. ku mu fekkul nga man sa bopp. buñ la jàppalul. buñ la jàppalewul. gaaf am gaaf am. Ngaraaf ñëw nañu. waa Ngaraaf ñëw. ak doole. ak doole. ginnaaw bu ñëwee ci dij bi. ginnaaw bu ñu ñëwee ci dij ak sama mag ja. ak doole. ak doole. ba yëgatunu ko. ba yëgatunu ko. gàmmu gi ñëw. gàmmu gi ñëw. gàmmu gi ñu ñëw ak doole. ñu ñëw ak doole. ba yëgatunu ko. ba yëgatunu ko. nag. doole yooyu ñu dikkee nag. Assane mii Badiane. Assane Badiane sama njaboot sii. ci loxoom lañ ko jaarale. ci loxoom lañ ko jaarale. xaalis bu bari. xaalis bu bari. ak jiw bu bari. ak diw bu bari. ceeb bu bari. ceeb bu bari. nga yi loolu ku am. ku am loolu la ku mu loolu. war ngaa mën a daloo gan. war ngaa mën a daloo say gan. loolu. loolu ci ñoom la jóge ci waa Ngaraaf la jóge ñu ngi leen ciy sant ñoo ngi leen ciy di leen ci ñaanal di leen ñaanal di leen xamal ne di leen xamal ne yëngu naa ko baax baax a baax yëngu bu baax Assane mi ko indi woon Assane Badiane mi ko indi leeral na ma lépp leeral na ma lépp lu ci jigéen ñi def lu ci jigéen ñi defal asan wax na ma ko asan wax na ma ko ci góor ñi def li góor ñi ma ko asan wax na ma ko kon kon ñu ngi leen di sant ñoo ngi sant ñëpp ci fànn googu na di ñaan di leen ñaan yàlla mi am pay di ñaan yàlla mi am yàlla na leen yàlla na fayal ñu leen loolu ne woon naa loolu waxoon naa ne lu gàtt gàtt lu wax ci gàtt gàtt dinaa leen ko wax dinaa ko leeral mbooloo dama koy ñaareele li may ñaareele déclaré nañ fi ñu feebar. nee na déclaré nañu fi ñu feebar. cité nañ fi Serigne Bàcc Fall. wax nañu fi turu Serigne Bàcc Fall. bi mu demee Dakar. mu ne kii ci la bokk moom it daa feebar mais bi mu demee ndakaaru téléphoné na ma ñetti yoon. téléphoné na ma ñetti yoon. ma jokkoo moom. ma jokkoo moom. luy wax. luy wax. ci biir feebar bi. ci biir feebar bi. muy sàkku ñaan. muy sàkku ñaan. mais daal di ñëw fii. bi may laata ñëw fii. yëg naa ne. yëg naa ne. wéré dina. fii ma toog nag. waaye fii ma toog. dafa am baat bu Serigne Sarr Ibn waxan léegi. dafa am baat bu Serigne Sarr ak Ibn wax. mu ne El Hadj Serigne Faye. mu ne El Hadj Serigne Faye. ah yow day. yow day. ngan gi sangana. ngan gi sangana la. ak ah, ay dëgg. te muy dëgg na. gis nga ma toog nii. nee fii Serigne bi toog. ku fi dëkk Paaleen. ku dëkk Paaleen. wala nga dëkk Ngaaj. wala Ngaaj. wala li leen wër. wala li leen wër. maa ngi yow. maa ngi yow. noo bokk dëkk. noo bokk dëkk boo dëkk. suñu doon suñu doon nan leen ñibbi tey. kon bu ñu doon nan leen ñibbi. seeti jiitoo. su ma jiitoo. alaay sëriñ na topp ci man. alaay sëriñ fay topp ci man. ci man. Pape Diouf sama jabar na topp na te loolu ñoom itam. ñoom it. ñu koy dox. ñu ngi koy dox. di ko wax. di ko wax. kii nga xam ne mooy eh, sama jarbaat bii indi mbubb mi léegi. sama sama sang bii indi mbubb mi léegi. yaa ngi sang indi mbubb bu maa ñu leen sama noor. Cheikh Sène mais. alaay Cheikh Sène bu baax mais. jërëjëf ki alaay Serigne Faye. jërëjëf ki alaay Serigne Faye. ñoom nangu nañu ne. ñoom nangu nañu ne. góor gi Malick Faye mi leen mi seen mi leen meññ. góor gi Malick Faye mi leen meññ. sama nijaaya. nijaaya sama nijaaya. nangu nañu ko. nangu nañu ko gëm nañu ko. gëm ko loolu ak mbokk lañ ko waxee. loolu mbokk lañu ko doxalee. loolu xamul mbokk nga demee. xamul mbokk gi nag. doo ko xam doo xam loolu. ñu gën koo dëgëral ñu gën koo dëgëral teg sama sang fii ci Njóob teg sama sang Njóob Isa Jéey Isa Jéey Mbayang Fall jur ko Mbayang jur ko ak Maguette Diop ak Maguette Diop fam jox Seex Seen ñu jox ko Serigne Seex Seen ma dellu koy topp boobu rek ma toppati boobu bu nag tey nag tey jii nag indi na ko indi na mbuum mi indiwaale na ko it nag indiwaale ko ak képp ku bokk ak moom ak képp ku bokk ak moom ci sang yi na ngeen yëg ne yëg leen ne bëgg naa ci bég naa ci ni mu def. te bu ma ci bégee. te ragal ma ci bégee. isa mi ci mi ma ko seqal. isa mi ma ko seqal. moom it moom it bég na ci. moom tey ci bég. ak mbokk yëpp yëpp. a day bañ a gudd. damay bañ gën gudd. ndax isa boobu may waxal. ndax isa Diop mi ma a ngi nii toog. càmmiñam a ngi toog di Ibrahima Diop. di sang sang. di sang moom it. ñu ànd ñëw. ñu ànd ñëw. kon kon. santaane ñaan yi ñu santaane mu jëm ci way feebar yi mu jëm ci way feebar yi nu bañ a bàyyi ñëpp ci yéene a bàyyi ñëpp ñaan yi ñu fi santaane ñaan yi ñu fi santaane mu jëm ci gox bi mu jëm ci gox bi mu jëm ci Sénégal mu jëm Sénégal le tàmbalee présidence ba fii le tàmbalee présidence ba fii moom li fi di ay ndawam tey ñoom ñi fi di daaw sakkan nañu fi bari na fi te kenn ku ne te kenn ku ne jaar nga fi nga war a jaar jaar nga fa nga war a jaar wax nga li nga war a wax kon bu ñu ko ñaanalee kon bu ñu ñaanalee président ñëpp la ñuy ñaanal réew mi ku ñaanal réew nga ñaanal ñëpp dugg ci biir ñaanal gox bi bi ci nga ñaanal ñëpp nga ñaanal nu bokk ñaan yàlla nan ñaan yàlla moom moom mi nangu ñaan yàlla mii nangu ñaan nga xam ne nga xam ne bu lamb bulan ngootee. bu lamb di ngootee. ñëpp la ñuy ñaan. ñëpp yàlla la ñuy ñaan. na neex. mën naa neex. ma ma bakk sama maam. ma bakk samay maam. waaye bu lamb di ngootee nag. waaye bu lamb ci yàlla doo ngay ci ci kon ko koy kon ko koy nan fatiha. nan fatiha. isa jaa nasrullahi. isa jaa nasrullahi. qul xul huwa laahu falaq ak naasi falaq ak naasi julli ci yonent bi ko waay ma ne salaatu ala nabi bu waay mu mujj ko yàlla faj feebar yëpp yàlla faj ñu feebar yëpp faj itte yëpp faj suñu itte yëpp feebar yi ñuy dégg feebar yi ñuy dégg. ci rajo yi ci rajo yi. ak ci télévision yi ak ci télévision yi. yàlla bu mu fi ñëw. yàlla bu mu ëgsi fii. dafa mu xas yàlla yem siin. dafa mu xas a dugg. te siin nga mu dugg. yàlla gàtt. yàlla na fa jeex tàkk gàtt. ñu ñu fa dal. ñu mu daal. yàlla nañu wér. yàlla nañu wér. te bu ñu ko wàll kenn. te yàlla bu ñu wàll kenn feebar. barke nañu si sa rajo. amiin amiin yaa rabbi. آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين امين يا يا امين امين امين امين امين كم salla allahu taala wa sallama ala afdal ajmain mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla jullit yi muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu nuyu góor jigéen mag ak ndaw tànku tey yi dafa mel ni nekkul guléet fii di ngiij yàgg nañu fee taxaw béy nañu fi yalwaan nañu fi wóor yalwaan fi ñam maa ñi fi nekkoon ñëpp mën naa lim seeni tur tey waaye kon day guddi tey dafa ñu fi nekk ñëpp ay sët lañu ak ay doom comme man mii ni ma fi nekk noonu li tax ñu jóg nag sëñ Mérina mii di Abdou Aziz sëtu maam ñàkkur Sarr bi nga xamee ne yàlla def na xalifa fi nekk yëpp mu nekkon seen gannaaw di leen tarbiyewu di leen topp di dox seen service yàlla mi dogal dogal tey di ñuy bëgg a gàmmo mbagam bi mu jël nekk xalifa sëriñ ñàkku sa yàlla ko yàlla yërëm mu génn àdduna yàlla def diggante bi mu génn àdduna ak ak gàmmu gi nekk diggante bu gàtt mbokk jullit yi fu mbokk nekk moo xam la ci mérina wala muy taalibe feneen gis nañu la fa teew fa am na ñun naqar wi am na ñun tiis wi tekki fan yu rek gàmmu gi ñëw ñëw eh, taalibe mbokk yi di ka defaat noonu ba gàmmu gi jàll nit nag su fekkee soo wootee mu ñëw soo diglee mu def yow itam war nga am ngor gu toll ni boo jikkee ba yàgg fu ma nekk fekk fa nemmiku ko moo xam kenn la fa wala ñaar la fa wala mbooloo la fa ndax kenn na taxaw taxawaay mbooloo mbooloo dana yées kenn noonu la ko arab waxe léeg-léeg kenn taxaw taxawaay mbooloo léeg mbooloo yées kenn loolu nag lépp pas-pas la sëriñ bi ñëwoon tey nag pour delloo njukkal taalibe yi delloo njukkal mbokk yi delloo njukkal dëkkandoo yi ndax sëriñ Mérina ku ne xam na ne Bawol gépp taalibeem la ñu woon Bawol gépp mbokkam la ñu woon wax ci waxam ne amul taalibe ay mbokk la am ngir gii tey suñuy maama fi nekk sëriñ Saar mii nga xam ni mooy rakku sëriñ bi tey mbokk mbokk yëpp a ngi géej géej la kër maamam la ñun ñëpp suñu mbokk yaa ngi kër maam la kon dafa mel ni Babacar Tage bii nga xam ne taalibe la mbokk la wëllëre wa wëllëre la borom passeport bu dëgër la boo xam ne da koo donn ci ay baayam ak ay maamam bi ay waajuram làqoo ba léegi lu ñu daan def benn def na ko fukk su ngeen ko yëgee ak su ngeen ko yëgut xam naa yëg ko sax ndax yéen ko jàppale yéen waa Ngéej ndax di ngeen teewe fii tey teewle ko ànd ak moom teewle ko sëriñam xam na ne yeneen moom benn ngeen sëriñ bi ñëwoon tey di ko siyaare di siyaare mbokk yëpp di leen jaanal yàlla di leen nemmiku pour yëgal leen ne fu ngeen nekk moom ngeen fa nekkal yéen tam fu ngeen nekk. moom moom ngeen fa nekkal tabaarakallaahu kon loolu mooy tànki siyaare bi tey dañu waroon def ko ca jamono yu yàgg ya ca gannaaw waaye xam ngeen diggante sëñ bi mu nelawee ak bi ñu gàmmoo benn la te diggante bi daanaka dara xaju fi tabaarakallaahu kon ñu ngi nuyu bokk yëpp ñu ngi nuyu borom dëkk bi chef de village bi notable yi fi nekk imaam yi jàngalekat yi suñu mbokk ngi ñoo ko bàyyi ñu mbokki démb lañu su lépp ñoo ko bokk ñëpp lañu ñuy siyaara di leen nuyu di leen balu àq sëriñ bi ne bu ko mënoon kenn ku nekk bu ñëw ba si biir néeg jox la loxo saafoonte ak yow wax ak yow ñaanal la yàlla waaye xam ngeen ne waxtu wi xat na tabaarakallaa kon dañuy gàttal fi wax ji tabaaraka te xam ne li ko tax a jóg mooy nemmiku taalibe yi nemmiku mbokk yi saafoonte ak ñoom ñaanlante ak ñoom xalifa la boo xam ne ay mbokkam yëpp ay rakkam ay magam ay doom baayam ay sa ñëpp nangu lañ ko xilaafa gi ànd nañ ci ak moom tabaarakallaahu kon kooku mu ñëwoon tey di sayaare di eh, eh, di di di jëggulu di fas kóllëre di feddali kóllëre ak ñi nga xam ne seeni maam ak suñu maam fasal nañ ko démb tabaarakallaahu loolu moo ñu andi tey fii ci ngi ñu ngi sant ñëpp tabaarakallaahu ñu sant Njaay ñu sant Fay ñu sant Juuf ñu sant Tage ñu sant Njoor mën naa lim ñëpp tabaarakallaahu ndax fii laa dëkk ñëpp fii la ñu dëkk tabarakallah daa nañu wër fii ci ci dëkk bi di di di di di yalwaan fajar tabarakallah nekk ci kër sëñ imam Baye mi ci Ngaraaf fa lañ jànge lépp ñoo digaloo tabarakallah kon xam ngeen ne xam nañu fii bu toogee ne ñu ñooñu daan yalwaan fi daan ñëw fii di sàkku ndimbal ñoo ñëw tey nekk xalif général Mérina Sarr war na ñoo fàttali ko waat loolu fi yéen tabarakallah loolu moo indi sëñ bi fii tey kon ñu leen di gërëm xam ne ne mbay tege mii lay fu bàyyam tolloon maamam tollu fa def na lu ko raw ci njëriñ na musta sonn musta toqi musta tayeel lu am lu nekk moo fay jëpp moo fay mucc tabarakallah kon ñu bàyyi ko moom itam ay kàddu ba dee sëriñ bi ñaanal leen ñu jàll insha ñu sant ñëpp digal ñëpp tabarakallah bismillah ñoo ngi sant yàlla bi jële ci yonent bi maanaam tey jii de am nañu lool mësuñu ko am am nañ ko tey mbooloo mu toll nii lislaam tax leen a jóg ñu ànd doon benn ñëw taxaw ci dëkk bi mbay yàlla na yàlla guddal sa fan wéra sa jeex dafa am loo xam ne dama ko doon wax toujours boo nekkee ci dëkk sunu borom dimbali la nga yor xam-xam tudd fa doom maye fa jabar julli fa mu néew dara desetu te wax naa la ko guddi wax la ko bëccëg taxawe nga ko maanaam li nu bëgg nag sëñ bi yàlla na nga fi yàgg waaye dana bëgg bés boo xam ne bésab boppam lay doon nun nu ngar dajoo ko noonu rek lay mën a demee nag bésab boppam lay doon moom dara waru ko nun waa dëkk bi nun la war mbay loolu lan lay ñaan nga sàkk ko ci sëñ bi yéen ñi ànd ak sëriñ bi ñëpp ñëpp ñëpp suñu xol sedd na sunu kilifa yi fi newoon te bàyyi ko fi seen xol sedd na tey barke sëriñ Tuubaa seen xol sedd na lii rafet na rëy na te lii rek moo di njullit nag lii rek moo di jullit yal na yàlla xeer nu ci def lu baax wax lu baax toppante nun de fii nu dëkk amul murit amul xarit amul tijaan sëñ dongo ngi toujours dama koy soññ ne ko dee leen fexey nit ñu tedd ñi ngeen am ñu ñëw ci dëkk bi ni ñëpp rek kon kabit yàlla na yàlla guddal sa fan lii lislaam doo nga ko man sa waajur kon la mu joxe doon xañtu lislaam am na lu feeñ nun ñee git it li nuy sàkku li gën a am solo réew mii na nit ñi jàngi alxuraan te bàyyi tubaab yi day na sëg barke Sëriñ Tuuba li <laughs> lislaam doo ko man bu doon tubaab la kenn ko ne ngi gis boppam di jëmawut loo ci am wala loo fi def waaye ñëpp ak ne teg yaakaar sëñ bi yaakaar ji nu am ci yow sëñ bi yàlla bu mu taas loo fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu waaye bis boobu daal nam nu ko sàkkal ngir yàlla ak yan bi jëmi sëñ Tuuba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 ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah àjjee borom sëriñ Mbir mi yàlla ngeen fi yàggal mu dëgër mais tax seen Sidi Maxtaar Mbàkke bi ne bu kenn ñëw fii di ma wax mbiram mooy teg fii daal ñëpp benn lañu waaye ci xarala kon gis seen leer gi ak seen am bi nga xam ne ñëpp àjj nañu jëm gis nga man mi wax ba kii moom fa yóbbu sama yaay madame Dieng gis loo xam ne lii yàgg naa ko gis ndax kañ tuddee kañ ko tuddee mooy ma ñu tuddee ko madame Dieng ñu yóbbu boobaa léegi dañaa fukki at de keroog laa mosul pencam tere ba mais keroog laa ne fii ak leerang fi barke Sëriñ mu ndax a ma waaye yàlla nga fi yàgg te wér waaye barke moom Sëriñ Fall jërëjëf sëñ nga fi yàgg moom barke moom Sëriñ Fall sama mag bi si bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullah mbooloo mu tedd mi fi teew maa ngi jël nuyu Baye Aliou Tage ak nuyu waa dëkk bi yëpp teg ko ci loxool imam Mbaye tegal nu ko ci loxool sëriñ Abdou Aziz yal na yàlla guddal fanam te yàggal ko ci kanamu taalu yal na yàgg jiite mbooloo tànk yi ñu fi ñëwee ak yi ñuy delloo ak mbooleem ku fi ñëw wala ngay dégg rajo bii yal na la yàlla boole ci yiw boobu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaddu yi may wax nag du samay kaddu kaddu yi bàyyi Aliou Tagge magi mbay di seen mag ci dëkk bi di magam dëkk bi moomu ma yónni di jotal ak cantam ne ginnaaw bu jullee ci yàlla sëlmal ci Muhammad sallallahu alayhi wa mbay mii de rakkam yoo xam ne jii dafa am lu mu taxawee ci dëkk bi te taxawee ñu dëkk bi bokk góor ak jigéen te dara manqué wu ci naa ñëw bii nga xam ne mooy wasilaam te mbay de mu ngi tegat tànkam ci siraatal mustaqimu te waa dëkk bi bépp mu ngi nu ko ciy tegloo ndax imaam dafa baaxoo julli ci jàkka allahu akbar asalaamu aleykum mu génn dem waaye mbay du def loolu mbay day julli ci jàkka ji buñ jullee ba sëlmal ñun ñii fiy nekk ak moom dina nu waar kemtalaayal kattanam ñiy dégg-dégg ku déggut yaa xam mu door a yëkkati rajo bi nag micro bi di wax tund wi wépp di ko dégg kon bàyyi yàlla wu ne la yal na yàlla guddal fanam sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér yàlla na taxawaay bi yàgg kon noonu ko Saliou Faye Baye Fall sàkkoona noo ngi lay noo ngi ñaan ci yow bis boo xam ne bii dañu koy moomal suñu bopp at nu ko yàlla fekkeloo te mu at yu baree baree bari te nga yàgg fi te wér lool nga defal na ko fii ci barke yonent bi barke sëñ Tuubaa barke Seex Tijaan Sëriñ allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf الله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا كل ما جهلنا وسكرنا كل ما نسينا إنك على كل شيء قدير mbokki jullit yi ñoo ngi sant ñëpp sëriñ bi sëriñ Abdou Aziz ñoo ngi sant ak ñi nga àndal ñëpp yàlla yàlla guddal seen fan barkeel ngeen waaye yàlla ngeen gën a barkeel dox ngeen tànk yu am solo tànk yoo xam ne lu am solo la yàlla yàlla guddal seen fan boo yeboon nga raaf ñibbi day doy waar waaye nga ne dem ba ngiij te fii yàgg nga fi ñëw comme ni ko ala Alaaji Moodu waxe fii kenn du leen ko jàngal xam ngeen fi ngeen yaroo sama baay da doon wax ni mbiri na bu fa guy ga dong desan doy na noonu bu fa guy ga képp desan ndax dafa mas a am benn histoire ca Ndakaaru booba yàgg na mu ngi dëkk boobu daaru xën fu ñuy wax kër góor gi xaalis mu ne dafa daje tukulóor yi daje bu métti ñu ne dinañu ko tëj dinañu ko alamaan sa baay woo ko ne yóbbante ci moom ne leen ko na sama baay na ba ma demee ba mu ñëwee mairie ko ba mu yegg nee na mu am fu mu am lu mu am lu mu ma jox ne ma ko nii ko nii am ñaari fan dellu ndakaaru tëdd sama néeg yor-yor benn waay fëgg bunt bi mu ne ko bisimilah mu dugg nee na mu ne ma yoway Samba Tage mu ne ko waaw mu suba dañu laa soxla police mu ne ko waaw koo jël dama julli rek toog tuuti dal di dem fekk fa benn waay mu ne ma góor gi lu xew mu ne dañ ma convoqué fii mu ne ma góor gi ñëw huit heures nee na ma toog commissaire bi ñëw ne ma góor gi lay ma ne ko man dañ ma fee kombuke mu ne ma yoway Samba Tege mu ne ko waaw mu ne ko góor gi dañu laa tooñ te gi dafa nekk alkaati comme nun mënuñu koo jox dëgg bàyyi la mënuñu laa jox dëgg ba ko waaye demal saa bu ñu la woo soxlaa dinañu la woo góor gi la bëgg nee na alamaan ñu ma fanaanu ma benn guddi kaso wax dëgg yàlla loolu mëri na na ko sama baay te nit yaakaar rek la am ci nit waaye yaakaaram jépp yàlla mel noonu ah sëñ wax dëgg yàlla lii nga def kóllëre mënu koo paase bu jëkkoon ñi fi doon nekk nii lañu doon def fu sa na nga dem fa xam ko te bi bii booy seet dëkk bépp nga ko ñëwoon xanaa da di dañu ne yoon euh, day am njiit waaye dëkk bépp nga ko defa bu fekkoon ne dangaa ñëw ca kër ga fekk fa waa kër ga kese kon du am solo waaye nag dëkk bi bépp kenn desul dëkk bi nag sëriñ bi nit ñu baax lañu nit ñu baax lañu loolu Saliou fay wax lu baax la kenn gënu leen li Njaay Faal wax ci sëñ Sidi Muxtaar yal na yàlla dolli leeram yàggu fi waaye liggéey na liggéey bu rëy yal dolli leeram jigéen ñeeg góor ñi ñëpp a ngi fi dégg nañu ko ci rajo bi am na ñooñ wax naa leen ko am na ñooñ ci rajo bi lañ ko dégg rekk kenn amatul fenn soxla toog di xaar dana yàlla guddal seen fan dëkkandoo yu baax lañu dëkkandoo yu baax lañu wasalaam nee na jibril doon na ko dénk maasaale jibril yu siini bil jaari hatta sanantu annahu sayu wari suuxu nana jibril don na ma denk dekkando ba ma jortu na bo de dekkando mo la wara don ko dekkando amna solo way dekkando yu bax a ni nii dana yàlla guddal seen fan kóllëre gi mat na yàlla yalla def ci yeen barke barkel ngeen way yalla ngeen gëna barkel and bi yalla yàgg and bi yalla yàgg santana len bu baakha baakha baax ndax xam ngeen ne man mëni na léeg-léeg ma gëj fa sëñ Abdou mii damaa toog keroog sëñ Talla nelawee maag jon mu jon bu ndàngal ma nu yàgg saalam lool mu ne ko sëñ bi de xaw nañ fi yàgg mu ne dama nekkoon ci mbiri sëñ Talla mu ne ko nag muy jéggal te ndax léeg-léeg ma gëj fi mu ne ma yow de fukki at bu ma la ko gëjoon a gis bu ma la gisee xam ne mbay rek laa gis dana yàlla guddal fanu place boo toog nit nga fay xaar lépp lu ñu ne diwoo ko moom dinañu fàtte turam bés def fa beneen tur ba mu des waahidul xahaar waaye sëñ bi place bii nga toog yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi am loo foogutoon yàlla nga sut say maam ay fan nit ñu am njëriñ ngeen yàlla yàlla guddal seen fan seen ñëw gi si gël nga nu si gël nga fi nga jaar yëpp si gël nga leen yàlla nga fi yàgg yàlla mi nga xam ne moo fi yàggal ab jaamam yàlla nga fi yàgg sant naa la bu baax a baax a baax jërëjëf Sara dana yàlla guddal fan wi jërë ngeen jëf dañu fi am ñaari bilaal ba ci ñett waaw ba ci ñett ñett nga ñaanalal nu leen xale yu ndaw la te ñooy yee jullit yi xamuñu sedd xamuñu tàngoor te xale deretam da ko moom jamono bi ñuy yeewu ci sedd bi di ñëw fii am na seen moroom yooyu ñu ci seen biir mbaj nga ñaanal leen leen bu baax muy Nguura Jóob mii doon wax wax kàddu Aliou Tage ak Aliou Ndione ak yu ndaw lañu waaye ñooy yee jullit yi imaam ak sëriñu daara ak bu mabdukat yi ak bilaal yi ñooñu booy seet boo leen dindee ci diine ji doo doy waar imaam ak bilaal ak sëriñ daara ñooñu ñoo yor islam bi yàlla yàlla guddal seen fan yàlla yàlla def ci yéen barke sëñ bi li ñu waroon a wax lépp nit wax nañu ko yal na yàlla guddal seen fan jigéen ñi kenn mënu leen xam nga ne jigéen mës a des ginnaaw xanaa bu ñu desee ginnaaw tey la waaye mësuñoo des ginnaaw jigéen ñi dëkk bi ñu baax lañu koor gu jot fii naa ñuy naafila man mii li ñu may jox ci suukar waxuma koor gi mais koor yi du tax mu jeex suukar tàngal makka fe lu ne la may jox yàlla yàlla guddal seen fan seen doom yàlla ñu barkeel yàlla yàlla defal lu wér ak wérle xale yi yàlla leen yàlla musal ci ndox sax bu ñu julli mukk ba dem te ñaana lu ñu xale yi ndax xale yi bu kër doyee waar ñu woo leen bu ordonnance amee ñu woo leen lépp lu xew ñu woo leen yal na yàlla guddal seen fan jigéen ñi ay jambar lañ ñoom ñëpp jàmbaar lañ kenn gënu leen yal na yàlla guddal seen fan lu ngeen jur yal na barkeel jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf ñu sant mbooloo mi sëriñ bi mu ne asalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ne maa ngi nuyu bokki ngi jéeg góor ak jigéen di jiital ci nuyoo bi sëriñ Babacar Tage mi nga xam ne ci loxoom la ñu teg nuyoo bi. ñu teg ko mu jox ko bokk yépp nag. dafa mel ni li ñu fi waroon a wax lépp. dafa mel ni li ñu fi waroon a wax lépp. wax nañu ko. yàlla yàlla nangu barke na tawu tedd bi. daa fekk nag Babacar mii. daa fekk Mbaye Tage mii nag. papaam Samba Tage. baayam Samba ñu bari dañoo defee ne. ñu bari dañoo defee woon ne. ak nangoom. ak nangoom. ci kër borom Mérina. ci kër borom Mérina. kenn mënu koo jot. kenn mënu koo jot. lu bari loolu la ñu foog. lu bari loolu la ñu foog. waaye suñu Babacar mii day. waaye nag suñu Babacar mii. bu ko jotul itam. bu jotul bàyyam it. mu ngi koy seen. ma ngay seen bàyyi ba. su fekkoon ne kër borom mbiri na. su fekkoon ne kër borom mbiri na. dafa am péete. daa am péete. ci taalibe yi. ci taalibe yi. kon ma ñime ne. kon ma ñime ne. Babacar maa ko féete woo. Babacar maa ko féete woo. waaye nag kër borom mbiri na. waaye kër borom mbiri na Sarr. amul péete amul péete. ñëpp. ñëpp. taalibe yi ñu fa nekk rek ñu. taalibe yi fa nekk la ñu muy mag muy mag muy ndaw muy ndaw. waaye yàlla na toona ma ci moom nag. waaye yàlla na. na toona ma ci moom nag. na toona ma ci moom. doom jum masa am. doom jum mas a am. maa ko tudd maa ko tudd. yàlla na toona ma ci moom nag. yàlla na toona ma ci moom. ñaari waajuram yi fi génne. yaari way juróom yi fi génne. maa leen taxawee. maa leen taxawee. ko loolu cër la. kon loolu ab cër la. man defuma ko. man defuma ko. Babacar defu ko. Mbaye Tage defu ko. yàlla ko def yàlla rek moo waaye maa ngi leen seedal ne. waaye mi ngi seeneel mbooloo mi ne. ma fekkee ma toog. su ma fekkoon ma toog. mu am lu mu yor. mu am lu mu yor. jox ma ko jox ma ko. ci suba saa. ci suba saa. ma fekkaatee mu toog. fa ma toogoon ma ma la ma jox ma bu ñëwee mu jox ma rek. kon euh, loolu tax ma ne ma ngay séenu baayam. moo tax ma ne ma ngay baayam li muy baax baax. ndax nit moom. ndax nit. mënta baax. mënta baax. ba jot baayam. ba jot baay ba. ginnaaw baay bi jullit la. dinaa bàyyam jullit la. ma nga ca kanam rek. ma nga ca kanam. da daw di ko topp. nga daw topp ci rek. waaye doo ko mën a def waaye doo ko mën a jot. kon Babacar jërëjëf. kon Mbaye Tagge jërëjëf. Euh, ñëw gi nu ñëw. ñëw gi mbokk yëpp. fekk na fi mbokk yëpp. Mouhamed wax na leen ko léegi. suñu mbokk mii. suñu mbokk mii di siñ ndongo fay. ku am ak jotal la. ku am jotal la ci mbokk gi. fu mu la fekk fu mu la fekk rek mu ngi lay ñaax dina ñaax mu ngi lay dolli di la dolli mu lay jàpp loolu li nga jàpp di jàpp di la gëm loolu nga war a gëm di loolu la la yàlla ci na ne wane na ne moom moom dongo fay ak sunu mag yi ak sunu mag ñi noo doon ñoo doon ànd noo tolloo woon jamono fu nu daje rek waaye fu nu daje de dina wane loolu dina wan na man kët dina ko wane dina nu ko wan ci wax ci wax ak ci jëf ak ci jëf. kon sëñ Babacar jërëjëf. kon Mbaye jërëjëf. Ah, fekk na. waaye nag fekk na ne. guddi na ba noppi. guddi na ba noppi. waaye li mat a jib waaye mat a jib nag. waaye nag li mat a jib lépp jib nag. xanaa kay. xanaa. ñu fàttali. ñu fàttali. loo xam ne. loo xam ne. ba nu demee ngaraaf sax. ba nu demee ngaraaf. dana ko fàtte. dana ko fàtte. moo di mooy. juróom-ñaari fan. juróom-ñaari fan. ci weeru tubaab yi ñuy wax mars. surtout weeru taa ba wax mars. siyaaru ngay. siyaaram ngay. ca ca lay doon incha allah ca la ñu koy siyaare ji incha allah. ma dina waxal ne leen. ma di leen fàttali ne. tournée bii nuy wër. su matee. su matee. fas nanu yéene. fas nanu yéene. taxawal siyaare Marina. taxawal siyaara Marina. kañ la. kañ la ak ban bis la ak ban bis la mën koo jàpp mënaguñu koo wax waaye incha allahu waaye bu soobee yàlla dinañu ko taxawal incha allah dina taxaw lépp nag lépp nag roy mag ñi rek roy sunu mag ñu baax ñi rek ci dara jubluwuñu ci nag dara ndax ko xam ne bu dee gone itam koo xam ne bu dee gone it na juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar fukki atam mat na ba am na as lëf ci ay soxna. ami lëf ci ay njaboot soxna ak wéttal. am lëf ci ay doom. ami doom. su dàqee alal. su dàqee alal. maanaam du ko jot de. maanaam du ko jot. kon loolu taxu nuy wax. kon mu alal du yëpp taxu nuy wax. dana bëgg rek loo xam ne lii. dana bëgg loo xam ne. maa ngi doon na ko def. mag ñu baax ñi daana ko def. te ku leen roy. te ku roy ñu baax ñooña. doo ko rëccu. doo ko rëccu. adduna. àdduna loo ko def ci àllaxira loo ko def ci loolu dong lañ ci jublu ngeen xam ne taalibe ngeen xam ne taalibe bu mu mën a doon ci taalibe mu a doon jàpp ne mu jàpp ne daa war a noppalu daa war a noppalu taalibe moom ab taalibe liggéey rek ko jik dafa war doon ci taalibe yi ba noppi bu liggéeyee ba noppi ba di ko mu soxla bu mu soxla xam fa ko bi jëmee xam fa ko sëriñ bi jëmee su ko joxee rek su joxee lépp liggéeyam moom taalibe bi moom taalibe bi ajoom faju na ajoom faju na sëriñ bi kay li tax tareexa ak tareexa ñi koy jëfandikoo ñi koy jëfandikoo ñëpp ñëpp wax nañu ne wax nañu ne diggante taalibe ak sëriñ diggante taalibe ak sëriñ mu ngi mel ni mu ngi mel ni ki faatu ki faatu ak ki koy sang rek ak ki koy sang ki sang moom buy wëlbati buy wëlbati buy sotti ndox buy sotti ndox moo xam moo xam bu raggee buy rag moo xam moo xam lépp lépp moom néew du ci wax dara néew bi yoonam néew ci waa tasawuf nag dañu ne waaye waa ta ñi jëfandikoo tarixa ñi jëfandikoo tarixa dañu wax ne dañu ne li feeg miloo noonu li feeg miloo noonu sa sëriñ sa diggante sëriñ bi sa diggante sëriñ bi sa taalibe des na sa taalibe des na yàlla na ko yàlla defal barke yàlla na yàlla defal taalibe barke yàlla defal barke barke taal gu mat ba taal gu mat na ah, ma rek waaw ba ci sànni kàddu yi néew rek bismillah suñ ndongo ak kilifa yu baax yi nga ànd baax yi yéen sëf si yow nga ànd ak mbooloo mépp. di balu sama wax nag. saay wax. ci mbay mi rek la jëm. ci mbay tage la jëm. mbay. mbay tage yàlla na nga gudd kon yàlla nga gën a barkeel yàlla nga barkeel nga ba noppi barkeel nga ba noppi li nga wax ci waa dëkk bi li nga seede dëkk bi lu baax la lu baax la téye nañu la téye nañu la jàpp nañu la jàppale la gëm nañu la gëm la na ngay doolee góorgóorlu. doole góor góorgóorlu. jàppante ak ñoom. jàppante waa dëkk nit amut lut ay dëkkam. nit du boor ay dëkkam. ay nit amut lut ay dëkkam. nit ay dëkkam rek la am. soo amee say dëkk. soo amee nag say dëkk. am nga àddina yëpp. am nga lépp. ndax dëkk bii tey. ndax dëkk bii fi dëkk tey. ki fi dëkk. bokk dëkk fi ñun ñëpp. ñu bokk fi dëkk. boo leen limee. boo leen limee. fenn fu ne waay jóge na fa. fenn fu ne waay jóge na am nga ñëpp. kon am nga ñëpp. Eh, li kii nag. yow mbay nag. la bàyyam waxan la sa baay waxan ci sama diggante ak moom ci seen diggante yéen ñaar da koy sàmm ba fii nu toog yaa ngi koy sàmm ba tey dafa ñëw daa ñëw mu ne ko Babacar mu ne ko Mbaye Tage mu ne fu ndongo fay mii toog fu ndongo fay toog rek bu fa yëkkati kàddu bu fa yëkkati kàddu na nga ko wormaal na nga wormaal ndongo sa baaya sa baaya borom xam-xam te am na xam-xam mbay mii nag Mbaye Tage mii nag loolee ko bàyyam la ko bàyyam santoon mu ngi koy def mi koy def lu mu gën a bare di ko wax man miitam nag man ndongo maa ngi sant waa dëkk bi yëpp maa ngi sant waa njiit ma kenn. ràññeet liwu ma ci kenn. xamee wu ma góor. xam ma ci ku góor ak. xaw ma ku jigéen jigéen. xaw ma tijaan. xaw ma ci tijaan. xaw ma murit. ak am man jullit rek laa xam. man jullit yëpp laa xam. te moom ñoom nag def nañu ko. te def nañu jullit ànd ak moom tabaarakallaah sëñ li nga wax. li nga naa ko bu baax. dégg naa ko. Ibra mii. man mii di wax. xam na li ma wax. xam na la maak sama lanu benn lan woon dama ne lii lanu magantee lii lanu magantee kii dafa judd bii bis kii judd bis rek muy man mii muy man ñàkk jur ba ca ñaareel ba ñaareel bi mu jur Ousmane Diouf ñàkk eh, Antoumane Diouf Antou Diouf ca ñetteel ñetteel nii la nu magante noonu la nu magante ku lërante nag yow nekk ci nekk ci daara ji nekk ca daara ji am na benn xat mu bu ma bindal am na xat mu bu ma bindal booba ma nga gaar booba ma nekk mbos ma ne mu ñëw fa mu ñëw fa jënd gerte. jënd gerte ma sëfal ko saam sareet. ma sëfal ko saam sareet yóbbu ko ca gaaraas bi yóbbu ko gaaraas bi nag ma bindal ab ab xat mu. mu bindal ko xat mu ba ba sama néeg ci la lakke waaye. ci xat mu ba dafa lakk waaye bu rafet yàlla yàlla di dolli leen. yàlla yàlla fay leen saako la wax ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi salaamaaleykum wa rahmatulah. saako la wax Ibrahima Fall bala ñoo ñaan dafa am benn benn uh, benn mbokk mbokk taalibe mbokk jullit. sëñ bi ne bala ñoo ñaan dafa am mbokk jullit. bu ñuy wax Mbaye Ndiaye. bu ñuy wax Mbaye Ndiaye. bi ñuy liggéey suñu liggéey bi ci mbaar mi. bi ñuy liggéey suñu liggéey bi ci mbaar mi. te mu dëgër lool. te liggéey bi dër ku ne xam ne sartab suuf bu mag bu mag fukki junni lay jaar lu mu néew néew fukki junni lay jaar lu mu néew néew bu ñu ko dee indi ko dee indi mairie la saa yu ko dee indi moom saa yu koy indi juróomi junni rek lay laaj juróomi junni lay laaj barkeelu juróomi sotti suuf sa barkeelu yàlla yàlla laa ilaaha laa seydina rasulullah fa laa ilaaha illallah yàlla fa fa yàgg amiin amiin amiin amiin yaay Thank you.